Euh, monsieur le ministre donc de l' agriculture Samba Gelaajo Diegui ala euh, bonto ala caliɗo miɗa salminima miɗa juurima euh, donc je crois que aujourd'hui nous devons parler de l' agriculture malheureusement Macky Sall comme il n'a pas de vision il prend un halpulaar il lui donne l' agriculture et alors que le halpulaar donc lui c'est l'élevage qu'il connaît mais il lui donne l'agriculture non il connaît que l'élevage donc pour vous dire tout simplement n'a pas de la, la vision de Macky Sall comme l'a C'est pourquoi, monsieur, monsieur le ministre, je vous dis une chose. Aujourd'hui, on devra revoir le code minier. Le code minier pour que les ICS, pour que les ICS euh, puissent donc revenir au Sénégalais. Ça, que engrais, vous voyez, nous avons Indorama. Nous avons engrais Sénégal, yóbbu ko ba Inde defar ko ba mu baax indiwaatu ñu ko defal ñu Indorama pour wane ne kon ñu waa Inde ñoo ñu jaay engrais alors que ñu engrais bi ñoo ko moom. beneen bi monsieur le ministre mooy le code sylvopastoral il faut que le code sylvopastoral ak le code foncier ñu boole ko ndax loolu moo ñuy permettre tey les terres neuves de Koupentoum lan moo tax mu amoon allez-y aujourd'hui dans la dans le Sine euh, à Niakhar euh, ailleurs mënuñoo béy parce que amatuñu suuf il faut un, euh, une réforme foncière boo xam ne moo ñuy permettre que les cultivateurs puissent aller dans les terres neuves pour mun a mun a mun a mun a béy beneen bi mooy la question des gros producteurs la question des gros producteurs ça pose problème gros producteur mooy lan mooy que ni yow bu fekkee da bokk ci gétt gi da ngay naan ci meew mi boo bokkul APR doonu gros producteur amul suuf mën a la béy mais boo bokkul APR nekkoo gros producteur gros producteur boobu la ñuy jox 2 tonnes 3 tonnes 4 tonnes 5 tonnes de semence c'est ça sur le terrain euh, euh, monsieur le le le, le ministre je reviens sur la question du prix de de de l'arachide xam nga nit ki jënd jiwam jënd jiwam Euh, euh, yaakaar naa bu fekkee béykat nga xam nga ne pour nga am benn hectare il te faut douze kal wala treize kal nga jënd si jiw au moins c'est cent vingt kilos wala cent vingt cinq kilos nga jël ko ba pare jënd ko à mille francs ça te fait cent vingt cinq mille nga jënd ñetti saako engrais wala ñetti saako engrais pour mu mun a wis euh, bi yaa ngi koy jënd cent mille muy deux cent vingt cinq mille boo ko béyee ba pare mën naa am sax doo ci am cinq cent kilos gerte léegi état ñëw ne la temps ngay jaayee gerte gi prix de vente monsieur le ministre de finances égal prix de revient plus bene bénéfice pour nga jaayee ko li nga ko wéy maanaam su ma kilo gerte bi dikkalee fanweer wala ñeen fukk sama bénéfice nekk ñaar fukk donc juróom benn fukk laa ko war a jaayee donc c'est le paysan on doit aider le paysan à déterminer le prix prix plancher baaxul béykat yi xam nañ ne prix plancher baaxul te jàpp naa ne war nañoo génn waat prix plancher ba nga xam ne dañuy arrimer le prix par rapport aux besoins donc des cultivateurs